waxtaanee kon ba tey njiitu réew mi président Macky Sall jébbal assemblée nationale projet de loi bu ñeel jéggal national googee di euh, amnistie gannaaw conférence des présidents démb tey ji membres yi commission yi ci boppam commission des lois décentralisation du travail des droits humains ñoom la ñu convoqué ñu war a sëgg saytu projet de loi boobee jëm ci amnistie bi leeral yi ak Simon Faye juróomi article ñoo nekk ci projet de loi d'amnistie bi bi ci njëkk di leeral yi nga xam ne moom la yëf yi soxal muy ay mbir yu ñu mën a tuddee infraction criminelle wala correctionnelle te mu amee diggante fan wi njëkk ci weeru février atum 2021 ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 di leeral tamit ne mbir yooyee xewe Sénégal wala sax bitim réew laale ak ay manifestation wala politique lal ko te mu jaare sax ci support de communication bu mënti doon ña ko def ñu àtte leen wala ñàkk leen a àtte article bi di leeral ne amnistie bi day eh, tax ba lépp lu nekkoon peine principal ak lépp lu ci mën a aju muy ay peine accessoire wala complémentaire ak njeexital gu mu mënti doon rawatina bu doon ne day xañ nit ki ay waree wareefam ak yelleefam dootuñ ko jàppati te duñu ci mën a dellu ginnaaw projet de loi d'amnistie bi li ko tax a jóg bu ñu sukkandikoo ci exposé des motifs bi koy leeral ne jubluwuñ ci dara lu muy luy mën a dalal rawatina langue politique gi ñëpp mànkoo ànd nekk benn président de la république sukkandiku ci ngir indi jàmm ci biir réew mi bu weesoo grâce bi nga xam ne constitution may na ko mu mën ko jëfee ci lu gën a leer projet de loi d'amnistie bii nga xam ne dinañ ko yeggee député yi dina may képp koo xam ne yoon xañoon na la say droit civique wala politique ñu mën la ko dellu Mamadou Fofana projet de loi boobee ñeel amnistie bi nga xam ne euh, dañu ko yóbbu sa assemblée nationale jàppale ne kon am na ay lëndëm lëndëm ñu nekk ci biir wala lu desee leer euh, ci mbiru Ousmane sonk en tout cas noonee la El Hadj maître El Hadj gisee moom juriste la euh, consultant la ci wàllum droit et spécialiste ci wàllum contentieux des affaires dafa gis ne article 1 bi rek bu ci sukkandikoo mbiri Adji Sarr sa lay bokk mbiri Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ca lay bokk El Hadj Amath Thiam ci téléphone Fatou Abdou Ndiaye caractériser wuñ aussi ne infraction yi ci bokk yi ci bokkul defuñ ci benn infraction dañ ne rek infraction criminelle ak délictuelle te ci diggante am na infraction yoo xam ne am na ñoo xam ne toppee infraction délictuelle la am ñoo xam ne infraction criminelle donc mën naa jàpp képp koo xam ne def nga infraction wala ñomme moo xam ne yoon da tere depuis yëpp da dugg ci biir moo xam nga defek ci biir réew mi wala ci bitim réew léegi loi bi publique yi nga xam ne dafay lal état bi ak ay bànqaasam ak kiiraay nga kiiraay nga état bi yëpp lañ boole def ci biir kon mun naa ci jàppe ne kon loi bi su jàllee kon Ousmane Sonko moom nañ fi jàpp ba jugement bi jeex surtout dans l'affaire Mbaye Niang Mame Mbaye Niang kon yaakaar naa dafay bi bénéficié wu ci déchéance bi. est-ce que Modou bu loi bi jàllee daanaka du firnde ne kon carte gi yëpp la ñuy waat jëm ci élection yi est que du loolu moo tax ñenn ci opposition bi ne mukk du ci dal. c'est clair parce que ce qui est sûr moo di ne Ousmane Sonko après loi amnistie bi amatul luñ koy toppee parce que la loi bi nga xam ne moo na bi ci boppam dafa leer. ay faits lay visé. Mhm. et faits yooyu yëpp boo xoolee moom la ñuy toppee Ousmane Sonko. kon donc loolu noonu tax na ne day set wicc et boo setee wicc nag sa casier judiciaire leer ñuy wax na ne am na ay problème ñuy wax na ne wéy ay problème mi ngi ci mbirum euh, euh, conseil constitutionnel lag yooyu ak yeneen yoo xam te ne nee naa la waa ji ci boppam découvrir na ko au fil du temps président de la république donc la ma gëm te wax la ko sànq moom moo am moo di ne fa ñuy dem mooy dañuy rebotale les cartes reprise processus bi moom man moom gëm naa ne ci loolu nañu jëm et bu ñu jëmee ci loolu maintenant nag loolooy wax ci kon donc loi amnistie kenn niñ ko defee nii procédé beeg yooyu kenn d'accordu ci parce que dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo faatu et ne serait-ce que pour la mémoire de ces disparus là ñooñu nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan la gënoon moo di ne ñu élucider cette affaire on dira pas que amul nu ñu la mën a firndeel ne Ousmane Sonko est demandeur kenn mënul wax ne il est demandeur. parce que mhm. amoo foo ko mën a justifier. li wér te leer mooy Macky moo taxaw ne man sama bopp maa bëgg loi amnistie bi am na amnistie bi ñëpp xam nañ ne lañ ca dëxëñ lépp ak lañ ca wax moom mooy muy moom muy Bassirou Diomaye Faye ak keneen ku mu mënti doon buñ ko xasee voté ñoom ci seen bopp seen gannaaw bandang mun nañ bokk ci élection. maintenant élection boo xam ne Ousmane Sonko du ci bokk ak problème yi am élection boo xam ne Karim Wade du ci bokk ak yëf yi am est-ce que même également tey jii nii ñoom ñu bañ a bokk ak élection bu amee keneen falu est-ce que également président boobu mën na jiite ci jiitan boo xam te ne nii effectivement bu bu bu sedd guy lay doon pour Sénégal donc loolu yëpp dafa nekk yoo xam te ne nii yu mat a bàyyi xel la yu yoo xam ne véritablement da lay wan ne perspective bi effectivement ci lii la jëm aussi il faut s'attendre à tout parce que maa ngi la koy wax mbirum élection demaguñ fa parce que lii nii di raam nii ci ñag ba la jëm te bu fa demee dina fa am kër parce que lu ne mën na nekk te loolu bu amee it cela veut dire que encore une fois lu jëm ci wàllum élection yi dina indi encore yeneen yeneen yeneen rebondissement ba tax na ne boo moytuwul datu le 2 juin bu ñu wax ne sax dañ koy jàpp man gëw ma ne date boobu noonu dinañ ci dem élection bu fekkee loolu yëpp xew na na euh, Thierno Bocoum ancien député le président mouvement Agir nee na loi d'amnistie bi d'accord ci tey d'accord ci ëllëg da gis ne njiitu réew mi président Macky Sall bu euh, tege tànkam ci luwaa boobee bëgg kut kookur mu daal di am c'est parce que dafa jàpp ni am na foo xam ne nii dafa gis ne boppam ne moom coupable la euh, jëm ci euh, la fay jot a xew Thierno Bocoum ay kàddoom ak Fatou Laye Mbaye Diop waaw ñun moom d'accord ñu wax dëgg yàlla ci loi d'amnistie bi dafa doon loo xamante ne d'abord président de la république rek moo ko jël te kenn àndu si ak moom du parti opposition yi du du lu jëm ci société civile bi du kenn euh, ndax nag balaa ñuy wax mbirum amnistie xanaa day fekk euh, ñu xam lu xew balaa ngay wax mbirum pardon ne nañu baalante ak xanaa dañuy xam kan moo war a baal kan ak kan moo def kon député yi ñu leen di ñaax ñu bañ a ànd ci loolu d'accord ñu si amnistie fi ñuy xaar président de la république ginnaaw ba mu defee procédure d'urgence temps yëpp muy def procédure d'urgence si euh, mbirum loi yi procédure d'urgence si mbirum date datu élection yi lañ koy laaj loolu moo am solo tey ñun tey jàpp nañu suñu diggante ak moom élection la collectif bi nga xam ne moo ëmb ñaa faatule ci manifestation yi ñoom nee na ñuy d'accord ñu benn yoon si moo fay ci euh, amnistie boobee Mor Diop sa la bokk doomam Mamadou Diop ca la faatu woon sa yëmbal euh, atum 2021 moom dafa gis ne projet de loi dafay firndee ne ko ña sa faatu kenn respecté wu leen euh, mi ngi ci téléphone yu nu sabalde duñ yor am yaakaar ñu amoon yaakaar te ñoom ñu koy rey leen rek woor xale ndaw woor ba ngoon ñu door ko bëri fetal xëy ñu ne lay bàyyi loolu loolu moom wax dëgg yàlla xel nanguwu ko sama xalaatu bopp daal lu ma ci gis mooy ak ku mën a doonte àdduna soo tooñee doo jéggal sa bopp man suma ma tooñee ni dama koy woo ba mu ñëw xamal naka de lii na nattu la tooñ naa la waaye maa ngi lay jéggalu xam nga loolu bu fa yu góom waaye sedd na xool ñu nag danoo amul doole ay baadoola la su ma seen daal dañuy yoon day dox ñu xam ñiy rey ndax bu ëllëgee lii mën na fee amaat Simon daanaka projet de loi bii de bu jàllee dana ma jaaxal de. oui déjà waajuru waajuru ñi nga xam ne ñoo ñàkk euh, seeni ay doom. ne ñoom wax nañu lu leer depuis bi président junjee projet de loi d'amnistie bi ñoom mënuñ cee ànd mënuñu ci ànd ci loo